dikkati na ndeke yoo bu ñuy dee gàmmu dee ñu ne na nga doon ras déem ba gaayee tiit ca covid ba am na ñoo xam ni ndeke yoo bëgguñu woon mu jeex libération yéeni kaay ne ma tong-tong nga jeexagul ma nga woon it ci ministère de la femme ci wàllu caisse d'avance ak aide ak secours lan doon tongtongee ñi nga xam ni ñoo nekk ca ministère ba ñoom ci boppam ñoo njëkk a séddu def ko séddu bukki daal la nekke woon ci seenu biir moom daaj ba daal di xam ne lañ leen di tuumaal ñoo ko def waaye waat ci yàlla ne xale yi daal lañ bëggoon génnee ci mbedd ba ngir ñu bañ faa am covid yéeni am tur yoo xam ne daanaka dañ koo multiplier ba maar day taali te loolu nag sabab gi moom moo di daal di a tibb ci caisse d'avance gi waaye tam aide ak secours yi jël ay prestation de service ak acquisition de biens daal di koy présenté ni ki ay aide vérificateur yi daal di fay gis ab tibb goo xam ni maar day taali libération yéene kaay ne ma maar day taali gars yi nin caxat-caxatee sunu moomeel ci covid 19 gi l'indépendant yéene kaay ne waaye dañuy wax ba sonn rek daal di bàyyi fenn ci boppam la dul daal di mujjee ndax gis na ni nag milliards yin fa daal di jëlee sakkan na lool cour bi di ne niib ñenn jàpp ci loxo ci poos ñuy sàcc sunu alal ci loo xam ne dañu ko waroon fajee wala it fexe ba covid bii duñu laal ñoom ci boppam ministère yi gars yi xam leen ni seeni seen i daas danoo ànd di roñ-roñee sunu alal ñun askan wi fu muy daal di mujjee tribune yéene kaay ne ba ñu mujjee fenn moom yoon ci boppam nee na dina dal ci seenu kaw fay ba jeexal wala it nga dem kaso rek képp koo xam ne cour bi xam le na ni dangaa sàcc alal ci lii tribune yéene kaay ne ma justice dina dal sa kaw soit di nga fay xaalis ba ba mat sëkk wala it ñu daal di lay tàbbal kaso fa yàllaahu yàqu 24 heures yéen kaay daal di may xamal ne moom Sénégal de saa si tembe ay partenaire am dañ koo wóolootul rapport bii nga xam ne ci jamonoy xeexu mbas la askan wi jël seenug dërëm ak seeni i déem daal di cay dugal ngir Sénégal bañ a nekk ci guddi goo xam ni bër setagul alal joojee nga xam ne dañ koo dajale jox leen alal joojee leen jël sàcc faf lii tax partenaire financier yu Sénégal yi nag dañoo muuma faf ñoo wax ci jommi goo xam ne naka la nit mën a néegee nii ci askanam lii nag mooy dompatug néew ndax nag partenaire la leen taxatiit moom moo di bés bu yàlla sàkk dañ doon jot ay rapport yoo xam ni ma nga bàyyeekoo ci ministère des finance ak bu budget waaye tam ay équipe yu général Ndiaye tey jii nii wóorut ak nga xam ne amoon nañ ko bitim réew deñ na de ndax dem nan ba xam ni nag ñu neeg la ñu séqal mbir mi vox populi ne ma coowal mille milliards la ni waxtaanee saa si tembe mu ànd ak scandale yoo xam ne xamuñu nees ko mën a tuddee gannaaw scandale yi ku nekk sa njàqare bopp Mamadou Lamine Thiam parti démocratique sénégalais ne man ci boppam maa gisul ab dage boo xam ne nii sa xel sax may na la ngay def lii ci boppam ñoo war a wuyu Cheikh Bamba Dièye ne sàcc alalu askan wi day ab tàmmeef la ci réewum Sénégal ñu defuk seen alliance su sa temps noonu lii nag ministère de la justice moo ko a tas ak nguurug Sénégal Pape Sarr LD debout ne lii daanaka mook faatuk bakkan ñoo de ña xam ni ñoo ko def nag sàcc alalu askan wi dañ leen war a ci yoon naka la ñu mën a bàyyee ay nit ñu amee nii liberté ci alalu askan wi l'enquête quotidien ne ma saa ma nga naan niib tembe day mënta dellu ginnaaw dal ci kaw gaay yi nga xam ne sàcc nañ sunu moomeel dong waa grand place moom daal di tey samp blaaj diggante daaj ak ña nga xam ne ñooy ministre yi ñan ci boppam ñoo def càcc gi turbine yéene kaay ne ma Léon Zalé daaj bu woon bu ministère de la culture ak communication day ma ngay setal boppam xam le ni nag daanaka ñëpp chèque la leen fayee te preuve ci boppam mi ngi fi di leen setal critique yéene kaay ne ma opposition parlementaire bi day fas na nu yéene yóbbu mbir mi ci assemblée nationale neenu càcc gi ñu càcc ci covid 19 bi du tàbbee noonu géej de Abbas Fall ne ña nga liggéey de lu toll ci juróom-ñaari téeméeri milliards ak lu teg ñu daal di ciy profitoo di ko ca xat ca xatee di moomeelu askan wi fi mu toll nii nag Sénégal loxo daf fee nar a dar gémmiñ waaye du yàgg ci fan lay doon ñu daal di koy fàtte tàbbi ci leneen Abbas Fall ne waaye ñun ci assemblée nationale day duñu bàyyi daañu topp mbir mi ba fa mbaxana doonee benn am na ci ministre moom faw ñu jaaral assemblée nationale mënta ñàkk te it justice ci boppam daañu ko woo Abbas Fall moo xamle lu ni mel mi ci réew mi di jox kàddu Mamadou Diop Diop Decroix mu daal di ñëw ci motion de censure ba amoon ci assemblée nationale moom Mamadou Diop Decroix ne loo ci mënti waxit mbir moomee moom pouvoir bi ci boppam la gën a jëriñ ko opposition bi tribune yéene kaay ma boobu waa APR ca njaayum carte ma ca Fatick directeur bu artisanat Bamba Sarr daal di mobiliser ma candidature président Macky bi day saa bu nu xëyee muy gën di doon dëgg ci réew mi waaye nag lu mu metti metti Walf ne ma moom président Macky Sall bu mu fàtte ni scandale yi day mën ne ma ngi nii juróom benn fukk ak juróom ñaari million la ñu fekk ci compte yu Sen TV daal dina koy furaas daal di yóbbu moom président Macky bi ni yéene kaay na ma ma ngay déroulé nag ab plan d'action am nice lépp rek ngir bëgg tàbbil géej des médias direct news daal di may xamal ne moom Bassirou Diomaye Faye nee na lii Bougane di victimiser wu amut xamal ko ni lii ngay wax yow Bougane naan waxu politique la du politique Bassirou Diomaye Faye na ci comité bu vérification bi laa bokk te redressement fiscal bii sama loxo la lii politique la dama ne da ngay victimiser wu rek waaye dara ci amul moom direct news daal di may xamal ne d'accord SA ñoo ko xool Régidag ñoo ko xool Zik FM Sen TV D-Média Bos SA ñoo ko xool te la ñu xool lépp tàbbil nan ca impôt yu cher lool li bu dul politique luy politique le mandat yéen a kaay ne ma en tout cas diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany day fu ne ñu ngi ko fay jore ay xeer coow la coow la mooy liquider ab adversaire la ak nun ko mën a defee bu dee fii ñu ngay tëj ay comptam feneen moom ña ngi koy jiñ dafa bokk ci complot yéene kaay na ma complot la am déet moom nit dof day daal dinañ koy aaye ab concert am tribune yéene kaay na ma Aliou Sow ministre de la culture nee na keccet ko ca l'info yéene kaay na ma ak lu mën a am day ci nit dof nees na cee jàngee ni yàlla nga gëneen jën gudul keccax ndax aaye nañ ko concert am askan wi ci boppam daal di koy nattal ay millions yu sakkan lool les éco yéene kaay na ma kan mooy téye club 50 pour cent préférence nationale c'est 50 PN ndax nag daal dinañ fii dàqee monsieur Afrique de Vinci Eric Kopi ci boppam daal dinañ koy dàq marché boo xam ni lu tollu téeméeri million euro am na ko ci moom di vinci ci boppam daal di proposé ñetti million Ecotra ñu ne déetawaay moom entreprise bi ci boppam bëgg a liggéeyal ay société yoo xam ni diggante Liban ak France la ñu daal di nekk moo taxit C50 PN daal dina koy tàbbal géej fa yàllaahu xamal ko ne mbay demal nga toog Le Soleil yéen a kaay ne ma Messi yëkkati na coupe du monde ba Qatar 2022 la ñuy waxtaanee Argentine daal di daan France te tiro bu tax ba Argentine moomee saa si tembo mooy champion du monde Tribune Sport wax mën koo débat Messi daal mooy le meilleur te amul naatable ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoo ak jàmm